salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 13 novembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la la tribune wala leewtoo point net fu mu ci mën a doon rek tey ay xibaar xëy na fa bu dee yëglekaay bii di sunu làmb la nag moom li leer ba leer Zil Balde lañ ñu xëy woon muy wax mu nga jàkkaarloog rakk ja Ama Balde Zil nag na li leer leer nañ mooy daal fi mu nekk nii moom li leer mooy jàppal 100 millions moom ku ko mënta fay amaa Balde jàppal ne du la bëreel 100 moom wala dara rek loolu ma xëy ki nga xam ne moom moo di Zil Balde mu mel ni ki nag sunu làmb jàpp na ne kon daal négociation ya moom boo bëggee dégg-dégg wala waxtaan wa daal mel ni fi mu nekk nii de ci diggante Luc Nicolaï ak waa kër Ama Balde ci dee wala boog ci yàqu fa la jëm loolu daal mooy li nga xam ne nii mooy seetlu bi yëglekaay bi seetlu ki nga xam ne nag moom mooy Zil Balde moom nee na amatul lenn loo xam ne nii moom ñu ngi koy xaar ci Luc Nicolaï nee na daal ubbi nañu seen bunt ba mu yaatu yang ngir bépp promoteur boo xam ne daal bëgg nga Ama Balde nga ñëw loolu mooy wax ki nga xam ne nii day moom moo di Sil Balde keneen koo xam ne moom doomi Pikine la mu mel ni ki nag sunu làmb xëy ñëw di wax ne moom day daa mel ni fi mu nekk nii moo yore xam ne nii jàkkaarloo ak Balla Gaye ñeel na ko muy Boy Niang mu mel ni ki nag loolu su amee moom yëglikaay bi jàpp ne ne hold up moom Boy Niang danga ko def maanaam daal dina dal ci kaw kaañ bu bëggee dëgg-dëgg loolu sunu làmb xëy tey ñëw wax nu ko kii moom dal na ci ay kaañ muy Bombardier yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw dina xam ne day moom li leer ba leer daal am na ay combam yoo xam ne nii day ay comba MMA la le 14 décembre yoo xam ne war na koo bëre mu mel ni kii nag fi nga xam ne nii day MMA am jooju ñaari combat sax la ca Bombardier am yëglikaay bay wax mu mel ni ki am na deux combat yoo xam ne ñeel na ko benn bi Japon la koy bëree ba ca des mu war koo jongante ji fa nga xam ne moo di Angleterre moom Bombardier moom ma ba tey dañuy des ci moom ndax bu ñu demee ci Leewtoo point net nag ñun ñu xamal ne Bombardier moom dugg si na ci réew mi ñibbi na semaine maanaam bés bu dellu si fas yéene nag delluwaat ci ay voyage am yëglikaay bee xëy ñëw moom Leewtoo point net dinu ko wax ñii moom lañ doon woote muy mbirum entraînement mu mel ni ki nag sunu lam ne ne écurie daal foo départ moo fa mujjee am ndax daal daa mel ni woote booba daal est-ce que tàbbiwul boog ci noppi ñoo xam ne dañoo tax suñu làmb xëy ñëw dina ko wax écrit li bu moom seenub saison ren boo bëggee dégg dëgg daal yëglikaay bi ne na combat ya taxu koo bëri trois victoire nag lañ jot a am ak benn li nga xam ne moo di defet ña bëriwul nag moom bëri na fa lool lool lool waa li leer daal mooy ku ni ama neex ki nga xam ne nii mooy Zambala wala boog ki nga xam ne nii moo di Ronaldo ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ni moom ren gisee su leen ak ay combat am na fa ñoo xam ne nag moom jàppal wane nañu seen bopp ka nga xam ne moom daanoo muy papa yàdd moom mu ngay ne boppam di dem bu baax a baax gàmmu géey moom fa mu nekkoon ba tey mu nga xam ne moom la génn ka nga xam ne nag moo di seenub entraîneur wala mu topp ci entraîneur yi di Idi Samb moom moom la muy jooy ne li leer daal muy écrit bi moom ab jàppale da koo le jàppale na maanaam daal manqué leen ab jàppale lool lool ñi nga xam ne nag moom yeyoon nañu jàppale ba démb ci Leewtoo TV ka nga xam ne nii day moo di màng de ak association ba mu àndal demoon seeti leen mooy mbër yi nga xam ba bàyyi bëre te wéri di dab leen ka ca jëkk mooy Mouhamed Ali ki nga xam Ndour ak ka nga xam ne moom moo di faga ak Pape Diop Boston mu mel ni ki démb daal Manga 2 ak association wër nañu leen moo xam la ko dale Kër Massar la ñëw ba Géejawaay jaar Pikine ba Faas ku ci nekk ñu bet la ak ndimbal loolu mooy li nga xam ne ni mu ngi ca Leewtoo TV ñu fekk ko fa muy lu daw a daw yaram leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci mooy ki nga xam ne moo di Pakala Senior ci sunu làmb lañ koy fekk moom nag li mu wax daal nee na roi des arènes la bëgg doon am na ñoo xam ne nag dëkk na ki nga xam ne moo di Elton Malick Niang ak Abdou Lam Sarr daal ñii la wax ne daal ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la war a bëreel bu ñu demee fa nga xam ne nag moom moo di ca la tribune la tribune moom la mënu xëy indil mooy ki nga xam ne ni moo di Gris ak Tapha Tine mel ni ki ñoom ñaar nag fi nekk ni day dafa mel ni seeni mbir moom daa mel ni nag dañ la nag comme ndam ne ngir ka nag ñoom ñu war a jàmmarloo ak xale yi ñoom ñaari mbër yooyu la tribune moo xëy ñëw dinu wax loolu waaye dañu dellu fa nga xam ne mooy ca Leewtoo point net fekkaat fa ki nga xam ne moo di Manga 2 ak docteur Alioune Sarr mel ni ki nag ñoom li nga xam ne daal mooy ordre national du mérite moom la leen président de la république Macky Sall daal di tappal muy ma nga xam ne nii bëre na ba bàyyi bëre ak Alioune saar ma nga xam ne moom moo jiite li nga xam ne moom moo di lamb ja waaye dañuy dem ci li nga xam ne nii nag moom moo di lambi simple ja ba ta ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb nga xam ne nag moo doon ca Kaolack dimanche ji ñu génn moom jàppal ñi nga xam ne ni day ñooy waa Lamasas production ñoo fa tëggoon lambi simple danañ nag drapeau luuba moom ka ko jël moom moo di rajaxe rajaxe daal kera moo dem ca Saalum rajaxe ko dajeeg selemele final daal di koy rajaxe yenu lañ fa tegoon lese ba nag moom Abdou Ndiaye moom moo jël miis ba nga xam ne tamit moom la ñu tegoon ca Kaolack te waa Lamasas production defoon ko kii moom mburum kala moo ko naqari mu koy ñaxtu ñam ko jiñ nag mooy ñi nga xam ne moo di arbitre yi wala boog mu meroon ba wan leen meram muy général Malick jàpp na ne daal kera la am moom daa jàpp ne tegiwut ci aw yoon wala nañu ko àttee da koo naqari lii moom lu méttee métti la dal ci kaw Mouhamed Ndao Tyson muy ka nga xam ne ni day ne nañ moo ko yoroon ci wàllu mystique ba muy bëree ba tey benn combat dong la ko indiwul muy digganteem ak Gris Bordeaux kooku nag moom lañ fi wax ne daal moo bàyyi moo fi génnee àddina wuyu ji boromam ñu doon ko xam ñu xam ci turu Yuusufa Ndaw mu mel ni ki nag yëglikaay bi ñëw na sax ci datu juddoom nee mu ngi juddu le février 1943 nag génn àddina ci at yoo xam ne toll na ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar mu mel ni ki nag yëglikaay bi ñëw na tey di ko jaaleem ki nga xam ne moo di Mohamed Ndao Tyson ñun itam ñu ko koy jaale di wax ne rek lañ daan wax yàllaa ko wax te du dañ kullu nafsin saayixatin mawtin fa kullu man alayha faaniya kon ñu wuju ñu wéri itam yàlla na ñu wér képp ku ñu ciy jafe-jafe yàlla na la ci yàlla jëlee barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo mën lépp te moo am lépp te mooy joxe lu ko neex yàlla na mu jox li gën ci ñun. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen di gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di nuyu internet yi ñu suivre ci Leewtoo TV fu ñu mën a nekk si àddina bi ah leen ñaanal jàmm te di ko saaku si ñoom Amin Babacar nu commencé nag ak euh, journaux yi nga xam ne ñoom nooy def lamb ku su mel ni sunu lamb euh, euh, tribune Leewtoo TV ak Leewtoo point net nu commencé sunu lamb sunu lamb nag tey dañoo xëy dalal ki nga xam ne mooy Jules Balde léegi dafa mel ni Babacar carte gi leer na Jules Balde daal nee na 100 la ñuy laaj bu bëreeg Modou Lo wala boog du ñu bëri. waaw téeméeri million wala dara maanaam loolu la Jules wax waaw loolu nag mooy wax ji nga xam ne kon wax ju leer la kon daa mel ni li doon lam-laamee naan ama 100 la lépp cent ak laajul cent dafa mel ni kon léegi wax ji faranku laay na Jules magam di entraîneur am xam na ne daal cent millions yi buñ ko fayul Ama Baldé fasut yéene bëri ak ki nga xam ne ni moom moo di Modou Lo kon loolu moom mbir la mi nga xam ne tamit lu leer naa ñu la loolu nag li muy wane rek mooy kani kon li ñu doon wax juumuñu ak gëstu yi ñu ci doon def kani combat bi xaalis boobu moo ko téye parce que dañ doon ama yeeku kani sa 80 millions la lig bëgg cent est-ce dégg kon nag wax ja ko laay na ah la ñun xëy na nag bu ñu continuer aussi du ñàkk ñu déggoo boo ci si prix boobu nga xam ne moom laa kër Ama Baldé di réclamer ba tey euh, journal bi aussi mi ngi laaj nee na Boy Niang mi nga xam ni ngi laam-laame combat am ak ki nga xam ni mooy Balla Gaye de ñi ngi wax ni est-ce que tamit du réussir hold up maanaam jóge si euh, euh, défaite ak la déguerre ñëw nag si mag ji muy Balla Gaye gagné ko waaw loolu de bu ci dal dalee day dal ci kaañ moom ndax xam naa ne jóge ci li mu jóge moom la dëggeer ñëw bëreeg Balla Gaye moom dina dina waaw dina neex trop ci moom xaw ma nag gañe ba wala bañ a gañe moom mënuma caa sori ndax li am ba des mooy booy ñang mbër la mu mën a bëre xale la waaye Balla Gaye moom ndax mën naa bëre defe naa loolu mooy géej gi am na ndox loolu moom yaakaar naa ne mooy loolu li am solo nag mooy combat la boo xam ne daal am nañu ko bëgg am nañu xam ne tamit ay soppe Balla la ñoom bëgguñu combat bi waaye nag li am solo bu fekkent ne eh, lamb moom à chaque bu ñu koy taxaw rek di nga gis ñu ne lii war na am wala ñu warul am mais l'essentiel que su bal la bëggee booy Niang bëgg te Boy Niang moom xam naa du bañ kon Balla pour man moo yor ci gër gu yam moom mooy valider combat bi mooy nangu wala mu bañ mais su nangoo boo ko boo ko amee di nga am làmb ju neex a neex naa aussi mi ngi xamal ne que Bombardier bi euh, nga xam ne signé na ñaari combat pour euh, benn bi pour euh, Angleterre beneen bi pour Japon combat MMA Babacar waaw loolu dañ ko ciy félicité rek di ko si ñaanal ndam ah, parce que tamit ñun moom MMA bi koy jongante ak doomu ku ne MMA boobu mooy mbër mi nga ne moom la a gis mu pratique ko fii Sénégal ko mu am ci ndam tey defe naa ne ubbi na porte yi ba bëri di ko def gis nañ ci Siteu gis ci rëg-rëg gisoon nañ mu doon ko waaj rëg-rëg am na ay combat kon yaakaar naa ne loolu tamit lu amam solo la moom nag mu war ci jongante Angleterre ak fi nga xam ne moom mooy Japon Bombardier moom vraiment daal sportif la te tamit jàpp nañ ne sportif de haut niveau la kon ñu ngi ko ñaanal yàlla si loolu mu sumb yàlla na si jëlee ndam lu kawe njortam. waa Fass tamit seen entraînement démarrage entraînement door na mais daal benn ténor daal nekk fa woon nañu faux départ pour l'écurie Fass. waaw faux départ maanaam woote ba la ñu nañ ko war a wuyu see loolu nag li muy wane rek mooy li wax rek ji moom wala actuellement tête de file ñëpp dajaloo ñëwandoo entraîné ne ba bàq benn groupe entraîné fi ne boo koy wër ci écrit yi di nga wër lu bare bare bare bare parce que bu jëkkoon nag loolu moo daan am dañ daan gis écrit yi la ko commencé ca ka nga xam ne mooy mbër mu mag ma ba ci ki mujj ñëw ci écrit bi tey bu 5 heures jotee bu 16 heures 17 heures ba 18 heures boo ñëwee ñëpp nga fay fekk ñuy àndandoo di na daan na tax sa résultat di gën a positif mais léegi nag gisatuñu loolu léegi li ñuy gis mooy mbër mu mag mi su amee combat am day préféré am fu mu dem nekk fa liggéey fa bàyyi xale yi te pour man xale yooyu nga xam ne ñoom say idole lañ la jàppe ñëw ànd boobu ngay ànd ak ñoom am na màgg bu muy def ci ñoom ci wàllu xel ak ci wàllu bëre mais itam defe naa am na lu mu lay may ci wàllum contact ndax ngay contact ak ku njool ku gàtt ku yor pois bu baax poids bu bu cent kilo plus de cent moins de cent ngay liggéey ak ñoom defe naa ne yow miy tëdd fil bi tamit dina la yokkal lu bare bare bari ci bëri dina la gën a may ay repère Babacar suñu jógee suñu laam dañuy dem si tribune tribune moom nee nañu ñaari mbër yi ki si mel ni Gris euh, Gris Bordeaux wala Tapha Tine est-ce que léegi tamit jotul lu jox chance xale yi waaw ah, maanaam des li pour ñu joxe chance xale yi waaw loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñëpp di wax waaw muy Gris Bordeaux muy Tapha Tine muy Balla Gaye muy Modou Lo du sax Gris ak Tapha Tine ñoom mbër yu mag yépp ñoom actuellement ñoom la sénégalais yi wala amateur lamb yi ne nañu def grand contre petit ñu xool yeneen combat loolu defe naa ne mooy li nga xam ne ni moom la ñuy wax fan yi yépp defe naa ñépp a ngi koy wax te defe naa heure ba moo jot te xale yi ñu ko war a may tamit man dama naan mérito nañ ko parce que liggéey nañu nag yaa ngi dégg ba yegsi ci ñoom ndax boo xam ne bu bëree lu ëpp di combat daan ay am ay victoire yu leer nañ te bu jógee di di di di drainer fulul ful ay mboolooy nit yaakaar naa kooku nag dama naan euh, buñ ne sax may sens xam naa ne may ga du bëri lool lool parce que damay gëm ne dafa liggéey rek ba ngeen mérito bëri ndax ko mérituwul bëri ak yow pour man kenn du la tudd di ko tudd waaw. Babacar suñu jógee nag ci tribune dañuy dem ci Leewtoo point net Leewtoo point net nit ñi xamal ni ki nga xam ne mooy Bomb Dieng ginnaaw mu defee ñetti semaine Europe ñibbisi na démb ci guddi. waaw ñibbisi na moom Bombardier waaw loolu am na solo kon defe naa daal ñu koy wax mu dal ak jàmm rek. ñibbisi na Sénégal parce que itam xëy dafa ñëw pour gën a waaj nag pour gën a mën a daas ay ngànnaayam ngir su delloo MMA am yooyu nga am xam ne moom la a jongante mu am ci ndam. Leewtoo point net tamit ñu ngi xamal ni que ki nga xam ne mooy nekkoon ancien roi des arènes muy Manga 2 ak ki nga xam ne muy président CNG le président Alioune Sarr moom daal Macky Sall defal ne leen dañ ko toppal raaya raaya bu mag mën a mooy ordre national du mérite du lion Babacar. route nationale du mérite waaw loolu moom am na solo ndaxte yaakaar naa ne lu toll ni président de la république institution la su la ci citoyen yi rafetlu sa liggéey ak sa doxalin ba woola tappal la ordre national du mérite defe naa ne loolu tamit kon du ñu mën a def loolu rek rafetlu ko félicité docteur Alioune en tant que président du CNC ku nga xam ne mu ngi liggéey ci réew mi yaa ngi dégg donte am na ñu yoo xam ne dañuy jàpp ne sax ko am kon ñu koy félicité rek ñoo ànd ak moom ci ancien gloire yi ñi nga xam ne yàlla dafa dogal wér di ci ñoom mu def ci ñoom visite ak ab association di leen dimbali ci financièrement defe naa loolu lu am am solo la daal. Babacar sa foofu tam la ñuy des ci Leewtoo TV ndax démb maa nga dëkk ki nga xam ne mooy euh, président des anciennes gloires du Sénégal demoon na seeti ñi nga xam ne bëri na ñoom ba bàyyi ba bëri na ñoom ba bàyyi ba ñoom ñu bàyyi bëre mais daal dañoo xaw a tawat demoon daal seeti leen xool leen nemmeeku leen bàyyi fa tamit ay teranga Babacar. waaw loolu moom lu rafet rafet la parce que tamit euh, lu rafet moom lu rafet dong la mën a doon te mbaax mbaax rek la kon loolu defe naa baax la ànd bokk ndey ak bàyyi la ah, nekkoon nañu ay adversaire mais tey boo gisee démb am da nga xam ne ñii animosité amuloon ci seen diggante maanaam bañante wuñu woon dañ doon bëree nag ci cadre sport ndax Manga bëri na combat bu métti mook Mouhamed Ali bëri na ak ñëpp tey Faga de kese la bëreewul waaw Faga de la bëreelul ci ñi mu seeti woon kon yaa fa dire que loolu moo lay wan ne kon loolu mooy sport loolu nag li ñu jàngate rek mooy nit ki da ngay mën di tële di am di ñàkk ñoom ñi nga xam ne nag dañ daan bëree nekk seen activité te yàlla teg leen feebar yàlla nañu wér ak jàmm Manga sol dàllam jiitab association ñu defar ay enveloppe dem seeti leen loolu defe naa soulagement la te itam dina tax nit ki feebaram dina am lu bare bari loo ca wàññi kon ñooñu wéradi daal ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla wéral barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax tamit mbër yi nga xam ne actuellement ñooy bëri ñu xool ci loolu image yooyu nañ ko seetaan bu baax a baax te jàng ci lu bëree bëri xam ne succès bi ak adversité bi day jeex ëllëg te bu jeexee bu ngeen jaar woon fu rafet yemale mbir mi ci cadre sport soo légéey pour ngeen xoolante day xaw a jafe trop ko si kàddu nañ leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow di nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Astan di nuyu nuyu euh, samay doom Mame Diarra Penda Fallou bébé Rokaya bébé Moussa di nuyu Abdou Gueye doomu ndey Cité depuis États-Unis di nuyu ki nga xam ni mooy Aïda Diouf ak. Euh, Aïcha Faye madame Niang Babacar. waaw di nuyu ñëpp rek di nuyu internet yi nga xam ne ñoom ñuy wax Cédric na fa ne dugg na ci li nga xam ne image yi normalu ci lamb simple bi na lu leen bëggal lañ ci bëggoon mais ñu leen di TV yëpp fu ngeen mën a nekk ñoom Ousmane Diop ñoom Mamadou Kaolack Diallo tuuti yaay Sarr Khadiros Ndiaye Asi Diagne ca Mauritanie sama série maa koy nuyu moom tamit di nuyu waa Mauritanie yëpp di nuyu képp ku ñu suivre quoi mais Saliou Faye marché ti leen ma ko fàtte ndax li ma sol tey moo fi génn Zal fans club Babacar maa ngi koy bu baax a baax Elas Touré capo bu mag bi borom Gibraltar Centenaire ba Petersen maa ngi lay nuyu doomu ndeyu Baye Ndiaye di la ñaanal jàmm di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne que Sénégal daal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi